waajtaayu màggalu kazu rajab doonoon sababu ndaje mi ñu doon amal ci talaata ji ca njaareem te kii di góornoor Ibrahima Fall doon ki ko jiite ca ndaje moomee la ki jiite kuréel gi saytu màggal gi di sëriñ bada wi Mbàkke di dellu siwaat ci solo si ndaje mi nag doon mu am solo ndax dañoo daje ngir ñaari yëf te benn la mooy fàttaliku al isra wal mi'raj waaye fàttaliku gànneek jamono Cheikh Mamadou ñu di ci am nag beneen bis boo xam beneen fàttaliku boo xam ne nag ngir tënk ak waxtu gàtt bi mooy Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne ci la gane àdduna mu doon bis boo xam ne it mën nañu wax ne dañ ko fayee Serigne Fallou ndax màggal bu mag gii Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo ko digle woon waaye Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko woote Touba bisub màggalul Kazu Rajab gii ñu jëm nag Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilu moo ko wootee Serigne Fallou waaye Serigne fàlloo ko daan defal boppam xoolal jëf fi ni mu niroo. ginnaaw fàttaliku gi ñeel càkkutee fi nag la kii di góornoor def ab tënk nag ca la ca gën a fës. ci wàllu wër gi yaram foo naa ne liñ ci tënk mooy fukki poste ak juróom yoo xam ne des paiements la muy poste médico avancé mais ñu gën a dooleel également dotation en médicament ñetteel bi. waxtaan nag ñi nga xam ne mooy ñoo nekk ci hôpital yi muy ñetti hôpital yi nekk ci Touba pour que veille bi wala bés bi ñu mën a def des soins gratuits pour les pèlerins yi nga xam ne ñu ngi fay ñëw soo jëlee ci wàllu ndox ci biir Touba dinañ également jébbal donc waa OFOR pour que ñaari forage yi nga xam ne ñoo nekk àll rek muy raxmatul Ahad ak Touba Ndiarène ñu fexe ba fii ak màggal gi ñu mën koo mettre en service bu bees bu nekk également allier yaakaar naa lenn moo ci des muy raccordement au réseau de la Sénélec kilifa yaa ngi ci. moom mi le nag di xam xamle ab jokkaloo bopp dana dox ci digganteem ak préfet bu Mbacké ngir gën a mën a peeg saytu gi ñeel bépp dogal bu tukkee ci bile jataay. lépp loo xam ne tey def nañ ko ci nañ ko tënk ci benn këyit jébbal ko d'abord kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk muy seen services régionaux yi ku nekk xam ne tey bi ñu defee CRD lii moo lii nga lii nga sasoo am na ci loo xam ne peut-être si tàng tàng bi ñoom war nañ ko mën a def mais am na ci loo xam ne kilifa yi ci féete kaw. ñoo leen si mën a mën a jàppale su boobu également kayit ba ñuy def it nañ ko jébbal ministères yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau central du joteek également nag comité d'organisation bi bataaxal yi ñu def mais yaakaar naa ne suñu bosit da koy gën a dooleel su ko defee euh, kilifa yi xam ne lii mooy li nga xam moom la comité bi soxla pour ñu mu leen gunge ci bés bi. beneen jataayu xayma bokk ca lañu nësër sabab bi nag du lenn lu dul amal màggalu kazu rajab ci anam gu mucc ayib bés leen nag di yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.